Mignane Diouf ñu lay nuyu. maa leen di fay. Mignane Diouf nga bokk ci forum social euh, bokk tamit ci ñuy teg kuréel gii di réseau migration développement ak it ci yeneen yi ni mel yi nga xam ne dañuy yëngu ci mbir mi ñuy màggal le 18 décembre bi bés bi ñu jagleel migrant euh, tey euh, gis nañ ne phénomène bi dafa dellu si waat ñu bëggoon yéen ñi ngi nekk ay acteurs nekk ci mbir mi fas yéen faral di ci amat ay jàngat lan moo expliquer xale yi jëlaat gaal gi. waaw ma bëggoon rek d'abord balaa may dugg ci ci question boobu nga ma ñaanal ñi nga xamante ni ay migrants lañu ñu woon euh, te yàlla def ñu ñàkk seen bakkan ci yoon yi ci géej gi ci namoon tukki tukki pour xëy na soppi seeni nekkin mhm. wala seen i dundin ñooñu maa ngi leen di ñaanal ajana yàlla xaaral leen ajana di itam ni bu ñu dee wax dix huit décembre da di boo xamante ni euh, waa Nations Unies suñu kuréelu état yi gouvernement yi ñoo ne woon nañ fexe jagleel ko migrants yi ndax xam nañu ne mhm. eh, coono gi ñuy daj ñuy di leen di bunduxataal di leen di toroxal ñu ci ñàkk seen bakkan pour ñoom rafetoon na ñu am bés boo xamante ni ñun ñëpp dañ koy fàttaliku ñi nga xamante ni ñooy migrants yi de plus que dañ ne woon migration doon na loo xamante ni àq la yelleef la yoon la que nit jógee fi mu juddu doom feneen mhm. moo taxoon ñu def visionnaire wu ñun itam ci anam yooyu mm. la ñu fas yéene ren itam comme niñ ko daan defee ci at yi weesu màggal bés boobu euh, fàttaliku coono yi nga xamante ni bundu xataal yi ak tracasserie yi nga xamante ni suñu mbokk yi di jéem a tukki ñu koy dajal ci yoon yi mais itam ñaanal ñi nga xamante ni yàlla dafa jël seen bakkan mais itam évaluer mm. lépp loo xamante ni bokk na ci liñ daan def pour que migration des doon loo xamante ni àq la wareef la. Mhm. te nit ki bu kee buggee def mu war ko def ci anam yi nga wax mais itam évaluer lépp loo xamante ni jëm na ci ay politique yu état yi di tëral. engagement ye ñuy jël. Mhm. bokk na ci yooyu engagement benn engagement bu ñu tuddee tey engagement compact global migration maanaam engagement boo xamante ni dafay dëgër dafay ànd dafay boole Euh, état yëpp ak institution Nations Unies mhm. Mhm. ñoom ñëpp ñu jël euh, waat ne daañu protéger migrants yi donc yooyu yëpp dina bokk ci suñu waxtaan dina bokk ci suñuy euh, bés bi bi nar a màggal ñu bëggoon nag xam lan moo waral selon yéen li nga xam ne xale yi ñu jëlaat mbëkk mi waaw loolu moom pour nga xam ko il foog nga jël paramètres yu bëri il faut nga jël paramètre koom-koom il faut nga jël paramètre social mhm. il faut nga jël paramètre culturel koom-koom gi xëy na ni mu tëree ci biir àdduna gi tey jii dana koom-koom boo xamante ni dafa demee boor am ñu bëri ñoo xamante ni euh, liñ doon xaar ci koom-koom gi duñ cee jot am ñu bëri ñu néew yoo xamante ni dam koom-koom wi gi seeni loxo euh, ñoom ñi ciy def seeni bénéfice euh, xëy na au détriment de ñeneen moo tax coono yooyu yëpp moo tax ñu yaakaar ni bokk na ci ñàkkum koom-koom boobu ñàkkum xëy mi mais it na tam fitna yi am ci dëkk yi ci adduna gi xoolal ger yi am Niger ger yi am Mali ger bi am Burkina Faso yooyu yëpp dafa doon loo xamante ni dafay pousser xale yi ñu yaakaar ne foog ñu jóg dab wuti feneen wuti leneen donc yooyu bokk na ci mais itam ci biir kër yi mhm. da ngay dégg déedee yaay yi di wax ne ah eh, gis nga doomu diw bi mu demee def na nii indi na lii. Mhm. wala gis sax xale buy wax ne def yaaxaayam ne man mënatuma toog di toog fii rek di seetaan dama bëgg a dem seeti feneen ni kale def dem na ñëw na indi na lii euh, def na lii yooyu yëpp ay pression sociale la yooyu yëpp itam ci jafe-jafe yi la bokk mais ñàkkum xëy bi itam ci ci la bokk donc moo tax ñu yaakaar ne il faut ñu analyser ko ci ay paramètres yu bari yooyu paramètres nag. xëy na du benn façon lay taxawoo ci réew ku nekk mm-hmm. Mm-hmm. mais paramètres yooyu daal mun nañ yaakaar ni bokk na ci jafe-jafe. yu jar a sóoraale la tey jii bu fi comme mais d'œuvre bi ñuy wax bi nga xam ne bokk na ci ñi ñuy yëkkati comme argument bu doon dëgg-dëgg moo fi nekk euh, ca Espagne par exemple est-ce que dinañ doon delloo si ña nga xam ne euh, ñoom ñoo fi jóge euh, wutali fa. waaw xam nga Espagne dafa dee tekk ci réew tugal yi nga xamante ni bi pandémie bi bi ñëwee hmm. gis nañ ne am na ñu bari ñu fa ñàkk seen bakkan donc ñooñu ñàkk seen bakkan itam am na ci ñoo xamante ni euh, fi ñu daan liggéeyee euh, foofu tey liggéey am na fa hmm. te loolu xamal ne loolu euh, passeurs yi xam nañ ko hmm. xam nañ itam ne donc xale yi fi nekk seen liggéey demeetul noonu wala koom-koom gi demeetul noonu. Mhm. xëy na ñooñu boo leen ne boo yeggee fële nga am liggéey. alors mun na am ñu bàyyi seen xel ci loolu bàyyi seen yaakaar moo tax passé yi maanaam ñi leen di jàllaloo am clientèle bu tap clientèle boobu moo tax itam euh, gal gaal yi doon fer mhm. deux cent personnes trois cent personnes ngay dégg ñoo ngi def mais euh, situation boobu pandémie bi moo ko gën moo ko gën a Euh, pandémie bi moo tax ñi ñu bëri ñàkk seen bakkan fale bàyyi seen liggéey fii itam ñu bëri seen liggéey lañ daan def matuñ ko woon def mhm. ñu yaakaar ne bu ñu yeggee fale gis lu lu lu ko gën donc moo tax passagers yi di profité ci loolu alors euh, boo ko évalué tey moo tax gaal buy dem li nga fekk ci deux cent personnes trois cent jeunes deux cent cinquante jeunes ñuy dem ndax yaakaar nañu bu ñu yeggee foofu comme ni leen ko waxee ñu mën leen a jox li waaw tey ndax suñu dëkk am na politique migratoire bu baax. bo loolu dëgg-dëgg ki ci war a répondre mooy état. Mhm. Euh, man du ma état mais mun naa wax ni. war ngeen mën a évaluer en tant que société civile wala. waaw man mun naa la wax rek daal ni. Mhm. bi nga xamante ni suñu dëkk bi euh, woote nañu pour waxtaan affaire migration. Mhm. man amoon naa chance bokk ci ñi fekke woon mbir moom. ñu woowoon ñu pour que ñu fekkee waxtaanu élaboration politique migratoire. Mhm. loolu am na léegi def naa ñetti at wala ñeenti mais boobu ba léegi itam gis nañ ne li fa génnoon ci ay documents. Mhm. dafa mel ni ba tey jii xamaguñu euh, euh, li li li ñu ko def daal. Mhm. waaw xamaguñu luñ ko def xaw ma ndax dañ ko Euh, bàyyi ci tiwaan yi ndax dañ ko bàyyi noonu xamaguma daal liñ ci def mais xam naa ni euh, amoon na waxtaan boo xamante ne ñun bokk nañ ci liggéey nañ ci lu bare sax day mm-hmm. donc xëy na loolu euh, moom la ñu war a war a xoolaat ba xam fan la taxaw. seetlu googu boo ko doon def ci Afrique loo ñu ciy wax. bon seetlu boobu bi ci daal mën a wax mooy que ni daal li gënoon mooy que ni ñu fexe ba li nga xamante ni mooy doxalin bi mhm. mu mën a doon doxalin bu bu yàmb maanaam euh, fexe ba Sénégal def d'abord lettre politique migratoire boo xamante ni président dina ko signé gouvernement dina ko signé mhm. état bi engagé wu ci loolu xëy na bu boobaa dina gën a yomb pour que ñu taxawal benn commission comité boo xamante ni boobu comité moo ne mooy ni mën naa fexe ba mhm. euh, fi ma toll tey ma produire Sénégal benn document de politique te loolu amul woon ci doxali mhm. xëy na loolu bokk na ci jafe-jafe loolu bu amoon euh, engagement boobu day tax Sénégal mën a am document boo xamante ni dinañ ko mën a valider ndax ñëpp a ngi ci journalistes yi société civile parlementaires yi élus locaux yi gouvernement bi ñëpp daal nekk xëy na bu boobaa lii taxaw dina gën a yomba jëriñoo mais dama yaakaar ni eh, doxalin boobu dafa am lu ci xëy na moo tax jafe-jafe yi ñu toll. wax nga ko sànq am na ay proposition yi nga xam ne yéen euh, société civile def ngeen ko tey jii mënoon nañu xam euh, ban solution tey buñ ko defee ñu saafara définitivement lii di question wala sax ñu organiser question migratoire. xëy na koy organiser lañ doon mais saafara migration kenn mënul taxawal ne wax ne dootuma am ay migrants yu jëm mais xëy na daal li ma wax sànq maanaam état de Sénégal xam ne war naa am politique migratoire. Mm-hmm. mu adopté benn lettre de politique migratoire taxawal benn commission boo xamante ni ñëpp dañ ciy bokk. Mhm. commission boobu ñu jox ko diir jox ko agenda jox ko date ne ko datu sangam bëgg nañu nga pare jox ñu suñu document politique migratoire. Mhm. buñ ko ko joxee ñu yóbbu ko conseil des ministres ñoom ñu validé ko wala ñu commandé ko yóbbu ko assemblée nationale assemblée nationale itam adopté ko bu boobaa xëy na dañu mën a waat ne am nañu. document de politique euh, euh, nationale boo xamante ci la ñuy sukkandikoo. Mhm. pour que suñu diplomatie di liggéey loo xamante ni dina gën a gën a méngoo ak lépp lu jëm ci migration en rapport avec suñu politique euh, panafricaine une politique de gis nañ ne crise économique bi dëkk yëpp la laal laata mbas mi sax euh, ñoo ngi ko doon dégg ñi ñi di ko lam-laame tey jii euh, suñuy migrant ña fa nekk xam naa du yomb ci ñoom nan la suñuy dëkk war a taxawee su ko defee seen i doom bu ñu paree pour ñibbi ñu gàttandu leen. waaw xam nga crise bi tey crise la boo xamante ni ah, crise la boo euh, dëkk yu bari hmm. ndax crise feebar la. feebar boobu itam jël koom-koom gi def ci ñoo xamante ni bi nit ñi taxawee benn usine doxul benn bureau doxul benn avion dawul mm-hmm. forcément moo am problème donc moo tax ñu toll foo xamante ni tey jafe-jafe yi bari na mm-hmm. alors léegi nag li ñu war a def mooy ci li nga xamante ni mooy faj mbir mi mm-hmm. ñu fexe bi waxtaane ko ni ñu koy waxtaane mooy que ni réew boo ci gis fexe ba am plan de riposte bu ànd ak plan de résilience. Mhm. plan de résilience boobu plan de résilience boobu. Mhm. mooy tax ñu xam ci koom-koom bi lan la ñuy génne ci jafe-jafe yi. Mhm. ci koom-koom bi nan la ñuy def ba mën liggéey maanaam nan lañuy ñuy def ba euh, koom-koom bi taxawaat. ñun newoon nañu ci mbir moomu nañ fexe ba lépp loo xamante ni. dafa di bor ñu waxtaane ko mm-hmm. xool niñ koy nii nale ndax kenn mënul fexe ba di say bor ci état bi bëgg itam di relancer euh, koom-koom bi relancer euh, santé bi relancer école bi relancer euh, ndox me ak li ni mel donc plan de résilience boobu tant amul dina jafe lool pour que ñu mun a trouver solution te loolu itam dafay ànd ak mesure yoo xamante ni suñu doom yi nekk bitim réew ñu war a ci dellu si waat il faut ñu xool itam nan la ñuy def ba ñoom bu ñu ñëwee. ñib si ñib si boo xamante ni doon ñib si gàcc. donc yooyu yëpp bokk na tey jii am na ay membre société civile ñuy wax ne ay états généraux rek moo mën a am euh, su ko defee waxtaan wi gën a yaa ñu andi ci ay saafara nga foog ne li dina tax ba ñu andi ci dëgg-dëgg saafara waaw états généraux wala leneen ñun newoon nañu mm-hmm. def toogaay nañ toog dañu fexe toog toogaayu mbokk toogaayu néeg Mm-hmm. toog ci suñu ne toog ci suñu kër toog ci suñu état waxtaan mm-hmm. woo ñëpp société civile état journaliste patronat pêcheur producteur ñu woo ñëpp xool li nga xamante ni moonu dal lan moo ko ëmb ak lan moo koy faj mm-hmm. donc bu fekkee loolu la ñuy wooye état généraux ñun jaag dañ di wootee assise migration parce que loolu daf ñuy tax ñu am aussi agenda boo xamante ni daf ñuy permettre fépp ñu dem ñu mën a wax migration ci anam yoo xamante ni dana méngoo intérêt Sénégal ñuy màggal bés bi ci jamonoy mbas mi ñu bëggoon a xam euh, atum ren lan ngeen ko fas yéene màggale waaw at bi nag at bu xaw a doy dafa de dafa mel ni sax atum boo xamante ni atum coono la atum mhm. nattu la mhm. donc xëy na li ñu war a def ñun ñëpp mooy nañ ko évaluer mhm. nañ cee waxtaan politiciens yi comme comme bi ñëpp dañu xool li nga xamante ni daal moo ñu daal ñu mun a xool at bi mhm. ndax ni daanaka dara sottiwu ci liñ ciy génnee ak bu ëllëgee nan la ñuy comporté loolu daal mooy appel bi nga xamante ni moom lañu lancé mhm. te journée bi nga ni mooy journée migration bi tey defe naa ne daañu fexe de ci waxtaan yooyu njugal kàddu yi ni mel Mignane Diouf euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf nga bokk forum social euh, bokk tamit ci ñu euh, samp lii di réseau migration développement merci beaucoup